mbëray bëre waaw waaw non non kii borom saag bi waaw ah eh jam waaw billaahi sama mbër sama rak mu jël lépp teg ko sama loxo jox ma jox ma cër déggal ma ah. moo may def lii waaw man moom ku ma ku ma ku ma ku ma jox sama cër rek ma delloo loxo xam nga ma man dama mën sama nit ku may mere sama nit nga may mere kenn mënul ne Ketchup en personne rek nga jékki-jékki mere ko wala eenal ko wala am loo xam la chaque jour rek ku may wala nga mere ma rek ni ma mel ci sama nit moo tax nga mere ma. Boucher neexuma lu tax mu ne daa bëgg diw. daa bëgg diw wala diw lay défendre kese rek dongu te loolu maa ngi ciy fier yàlla mi ngi may dimbali ci loolu ba nga xam ni musuñ ne daa bëgg diw ba pare ñëwaat di def leneen jamais man ku ma jox cër ma delloo loxo xeebu ma kenn nga buusi te xale bu ndaw la te daf ma jaral ma bàyyi lépp ñëw taxaw nax bi muy jël avance man maa jël xaalis bi maa jël xaalis bi tas ko ci ay njabootam mu toog yorul dara te daf ma koo nangul ma jox ko yaayam ak papaam ak ay jabaram ak doomam ñu séddoo xaalis bi mu pare àndaat ak man liggéey ñu do ñoo jóg see jàpp liñ ci war a jàppee ñuy gërëm grand moo Ndiaye bu baax États-Unis dimbali na ma ci 4 bloc yëkkati na 400000 jox ma ma boole koog lima ma yor jëndal ay bloc moo tax tey bu mën a féetal fii. Laurent tamit may nañ ko ay bloc jox nañ ko ko li ñu war def nañ ko ñoom ñaar ñëpp suñuy rakk lañ mais ñun nag deretu waaye mooy daw suñu yaram bu Siteu lañ bëgg mu daan incha allah rabbi. suma xarit suma doomu ndey Boucher moo xewle nekk suma lépp. loolu moo tax ma def déplacement maa ngi waroon dem Touba sax tay gi ñu nga maa gis si média bi mais dafa am ci li ma nekk mais yow man ak yow amuñu boo ñoo far tey nag nekk na combat bu neex mais li may conseil Ada Fass mooy na tey tey ci combat bi na respecté Jokal su ko bëggee daan ndax Jokal gis naa ni combat bi am na ci jàppale na tey loolu laa koy conseillé tey waa gis naa jok euh, Jokal gis naa ay ponkal waa Fatick jàppale ko na tey tey mais diggante bu Siteu ak Laurent nekk na combat bu tey mais bu Siteu mbër bu mus a jël ci sa dalay agressé mais tey am na combat. bu Siteu am na combat mais combat bi Sénégal yëpp di xaar mooy diggante rëg-rëg ak ki nga xam ni moom mooy saakees moom moo ñor saakees ak rëg-rëg dañoo war a siggi dañoo war a sëgg bëre parce que nag lamb ko quoi lamb la mais Ama ak Modou combat xalam demoon na bay neex bum ko dog ay doomu fàllaay bi. borom lu noir. so doomu ndey buy bëre ji. boo xam ne komba capital la nga war ko cee yàpp lan nga koy wax yaa koy xool rek. dama dama koy yërëm quoi parce que dama gis li mu daj. te bu dee coono rek mooy fay sunu borom da koy defal ndam parce que li may teg sama bopp lu ko raw laa koy teg. parce que lamb ji mun naa la la lamb euh, média la mais bu ci te ku def neuf combat ak ku def benn combat yamuñu niveau. Bou Siteu ko ëpp performe Bou Siteu ko gën a miin géew Bou Siteu victoire dama bëgg gars yi bàyyi loolu xel te ñu demee ci géew bi bu dina ko corriger waaye bu kat bu xoolal bu bu du la. ah nee na bu waaye kii di mag nga naan ma. nee na bu paa loolu wax la pour déstabiliser sa adversaire rek. mais loolu moom Laurent moo gën a xam ne Bou Siteu mënu koo mag. léegi yow bu ñu dindi woon faral dindi lépp ak ni nga mel ci làmb boo doon yab nan nga koy yabee ak nan la war a bëree ba génn ci combat li may indi làmb laa ko laa ko laa ko laa ko sëf respecter sa adversaire sës ko vigilant ci li muy indi bul lu bul dara te lu la may nga jël gis nga ni may bëree doyal ni guy gi ñëpp la coow dama lay sës loo teg ma teg yi loo wàqi ma suul te làmb mër bi la ëpp mille cent pour bëre moo la ëpp pour daan la parce que ki ñu bëre sa kaw yàq rek ngay mën moo tax ma ne ko bëreel ci kawam. kon tey séntu nañ mu bëre. day bëre. bu bu teel ngaa simmeeku de. waaw damaa pare moo tax. asaay pare naa nice. moom mu dugg see laa simmeeku. waaw na gis naa ko. mais moom ba léegi simmeeku wul parewul. parewul xam naa day bañ gars yi reetaan ko quoi dama yaakaar ne liggéeyul parewul quoi. waaw ah, man moom pare naa. ak mbooloo mi nga déplacé indi leen. du doon pression ci yow. non du pression da parce que man bii waa sama dixième combat. miin naa bis. kii ba arbitre bi du yee bu bu bu ma mënee ray sax na ma ñëw ray. moo woowee sa xeex la mu ne ma koy gaañ. su woowee sa xeex laa wax benn coxaasa bu ma ko woowee sa xeex dama koy ray. barki alxuraanu karim na ñëw ma daan ko ndànk ñibbi man tay ay xeex indiwu ma fii. mais dara la sa xeex nga gis lu garaaw. dara méttiwu la. non non dara méttiwu ma. lépp léegi dañoo tàmbalee kuy bëre ne am naa blessure. amoo benn blessure. amoo benn blessure yooyu affaire tapet taxaw naa dama blessure loolu affaire du la fi loolu du yëfu jàmbaar war nga ruus sax say mbooloo yi la topp man nekkuma ci yooyu. waaw man aw man man joobee ma noonu. ñaata bolok nga jënd bari na de. Bousse jëndal ma cinq bolok. waaw ku ci mel ne suba teel jëndal ma benn bolok. waaw ay nduuraa Balde ay Bébé Baas ñoo ñëpp ñëwaguñ affaire yëpp mooy loolu. a naa jàppale baal ma ma daan ba pare su daanee moo Njaay directeur daa am lu ma dencal nee na ma baal ma ma daan rek waaw waaw.